faslun li benn dog la ba aju ci fi salaatil jamaati wa ahkaamiha dafa aju ci àtteb julli mbooloo ak ya ca aju julli farata te def ko mbooloo bañ ko def kenn kenn dañ cay teqale mu doon jullit ajjuma ak bu doonee geneen bu fekkee day jullit ajjuma moom def nga mbooloo ab fart la ca mënu caa ñàkk ndax jullit ajjuma mëneesu koo kenn kennoo dem naa dem ba boo ñëwoon julli si juma far raakam ñaareel ba fekki woo jàpp ci woom ya nga xam ne raakam ñaareel ba raw na la kon mën nga armal rek ànd ci julli ga waaye bu ilimaan sëlmalee da ngay sëlmal te julli tisbaar boo fekkee nag ràkk ba ci mujj moom bu ilimaan sëlmalee da ngay jóg rek fay ràkk bu njëkk ba geneen julli gu bokk sa jumaa nag ci julli farata yi def ko mbooloo te bañ koo kenn kennoon sunna la su dëgër dëgër am na sax ñu àgg ci wax ne weesu na sunna farata la mënta ñàkk ndax Abu Hurayra ne daa am gumba gu ñëwoon ci yonante bi ne ko man day dama gumba boobu ko mën indi ci jàkk ji ndax mën na maa jullee saa kër mu ne ko dama dégg noddu gee mu ne ko waaw ne ko kon ñëwal mooy deel julli si keneen ne ko man day dama gumba sama kër sori te du saa yu ne ma mën a am ku ma indi naa ko bëggee ndax mën na maa jullee sama kër mu ne ko da nga dégg noddu gee mu ne ko waaw mu ne ko ñëwal julli si te caa teg ne ko maa ajidu laka ruxsa gisuma kët dara lu lay may nga bañ a ñëw ci jàkk ji boo weesoo nag julli farata yi say boo teg ca julli sunna yi julli korite tabaski ak julli muuru jant ak julli mbaaw ñoom ñu def leen mbooloo sunna su dëgër dëgër moo tax sax daanaka sunna sa mat naafila yi weeru koor yi tam Omar ibn Xattaab moo ca joxe woon ndigal ci taxawal kenn ci jàkka ja mu jiite mbooloo ma kon moom it sopp nañ ci mbooloo sopp nañ defe ko jàkka ja te def ko mbooloo boole ci ñaar ràkka yi fajar nag liñ koy fonk fonk moo ko tar lañ ci gën a taamu mooy beru def ko te bañ koo ànd ak kenn julleeg néew moom fardu kifaay la di ca ñenn ñu taxawee rek mu doy moom nag kenn rek bu ko defee mu wér waaye lu mbooloo ma gën a bari rek gën a baax lañu sib nag mooy geneen jullit naa fi la mbooloo mu bari daje di ko def mbaa mbooloo mu bariwut waaye bala bañ ko def dafa xas siiw bañ xam ko ñu ko weesu woon ca bind bee weesu loolu lañu sib hadis ba dane jullit mbooloo gënu na julli yow rekk ñaar fukki daraja ak juróom ñaar beneen nett li mu ne ñaar fukki xaaj ak juróom kon man nga ne bu jullee ci mbooloo rek am na tuyaabay ñaar fukki julli ak juróom-ñaar ak julli farataam gi nag mu ñaar fukki ak juróom-ñett mu ne nag dëgg la sax mbooloo ma nga xamee ne daa gën a bari ëpple boroomi xam-xam ëpple gaa yu baax yu ñu yaakaari barke jullee ci moo gën jullee ci mel mbooloo mu demewul noona waaye nag agul ci su soo jullee ci mbooloo mu demewul noona am sañ-sañu baamu ca mbooloo mee moom daal boo xasee julli bañ ne ànd nga ci mbooloo te am nga ngëneel la boo gisaatoon nag mbooloo mu gën a bari gën a baax yi du tax nga sañ a baamu mu ne nag jullit mbooloo boo ca fekkee benn rakka mat rek dal ngay am ngëneel lu mbooloo nga xam ne boo gisaatee leen mbooloo itam doo ca sañ a baamu du tee nag ka fekkee lépp julli ga ba fekk sax ba ñuy amal kookaay ëpplee tuyaaba waaye moom saa yoo fekkee benn rakk bu wër rek bu mat ci jullit ilimaan ba rek dal ngay am ngëneelal mbooloo danu daa wax naa boo ñëwee di ànd ci julli ga te jàppandoo ka lay jiite ci say wóom jàpp gu dëgëru dëgër rek dal ngay am booba rakka loolu itam ci lay gën a wóorloo ne am nga booba rakka waaye jàppal ne su fekkoon ne ba nga tàmbalee sëgg rek la ilimaan moom bàyyi ayowam di siggi waaye nag àgg nga ba jàpp bu dëgër ba ne tekk te ilimaan moom àggagul ci siggi ba ne tekk li fekk ilimaan àggagul ci siggi ba ne tekk rek nga ñàkk jàppandoog moom te wóom ya du tee am nga booba rakka ndegam sëggoon nga laata ma siggi ba taxaw jonn rek dañuy jàpp ne booba rakka da nga ko limaale bokk na ci sa julli lii waxoon na ko ci gannaaw waaye daa jàpp ne fii la gën a yelle moo tax mu baamu ko fi bu ilimaan rukkoo ba jàll te yow mi ànd ak moom ci julli bi jotugu laa rukkoo mën naa am dangaa fàtte woon ci rukkoo lañ toll mbaa sàppi saxat ñuy boxante yow mbaa nga xaw a gëmmentu tuuti kon dañ ne woon su fekkee wóor na la ne mën ngaa gaaw def rukkoo ba te ca ja topp dab ilimaan balaa siggee ca sujjóotu ñaareel ba ca ràkka boobee kon noonu ngay def soo jàppee loolu mënu ko nag nga far fekk ko rek fa mu toll bu dee ci sujjóotu bu dee ci leneen nga fekk ko ca rek te jàpp ne boobu ràkka raw na la bu ilimaan silmalee nga fay ko dañ ne woon nag loolu boo ko tayoon sa jul day yàqu maanaam ànd ak ilimaan di ko seetaan mu rukkoo ba siggi ba taxaw jon te yow jotugu laa rukkoo ci sa coobare rek moom julli ga day yàqu ba tayit bu la wóoree ne ilimaan ji moom ak julleem daa gaaw kas na rukkoo ba jàll te yow rukkoo goo tayit boo fi dee jéem rukkoo dabi ko balaa siggi ca su jootu ñaar ba doo ko man dañ ne woon kon day war nga bàyyi rukkoo ba te dabi ko fa mu toll rawante na nag sa ilimaan yëkkati ko ci sujjóotu ñaareel ba nga door naa damay rukkoo nag gaaw dabi ko balaa sëgg rukkoo ci ràkk bee mu taxaw loolu lépp julli ga day yàqu ndax da ngay mel ne kuy fay bu ko ilimaan rawee te ilimaan sëlmala gut loolu lépp waxan nañ ko ca te ñu weesu da koo baamuwaat fii rek ngir jàpp ne fii la gën a yelle soo jullee yow rekk nag mbaa ñëwoon nga sax di ànd ca mbooloo mu waaye amoo ci lu matub rakka daañu sopp boo gisee meneen mbooloo muy julli nga baamuwaat sa julli googee ndax nga am nga ne lii ñu tudd léegi waaye nag timis moom lu yàgg-yàgg doo ko baamu gee itam boo xasee wetar ba àggal doo ko mën a baamu ngir bëgg ngëneel waaye nag lu bokkut a timis ak gee moom gee moom wetar ba noppi lu bokkut ak yooyu yaar ni ki tisbaar mbaa takkusaan mbaa suba li fekk ama góo ca ngëneelal mbooloo boo gisee mbooloo mu koy julli mën nga caa baamu ndax nga am ngëneel dañuy wax ne nag mbooloo ci julli moom mi ngi tàmbalee ci ñaar nga xam ne moom rek bu julli woon ànd ak soxnaam ñuy ñaar teewul dal nañu nekk mbooloo bokkiwuloon nag mu julli moom mu kàllaf mi ak gone gone ga julli waragu ko ak julleem naafila dong la kon bu àndi gone njulli ñu ñaar du ko tax a am ngëneelul mbooloo waaye nag bu ñu nee ñaar rek bu ñu àndee julli mbooloo lañ ba ku ne am na ngëneel kat bokkiwuloon nag nga ne daay baamu ndax aw ma woon ngëneel bëgg ànd ak kenn képp ku jullee gutoon nga fekk rek kenn koo xam ne jullee gutoon nga ne na ànd ak moom baamu ndax ma am ngëneel dañ ca am wuute am na ñu ne kenn kookee dong boo ànd ak moom am nga ngëneel am ñu ne déedéet lu néew néew moom nañ mat ñaar mbaa ñu ëpp ko loolu na ci la taalifkat bi ànd bu fekkee ne daal amoo woon ngëneelal mbooloo ni ki yow rek yaa julli woon ma ngay julli gis kenn rek nag ku julleegut muy bëgg a julli la gën a wóor mooy boo àndeek moom baa muy du tax nga am ngëneel am na nag ñu ne mën nga ànd ak moom te du tee nga am ngëneel xanaa mu nekk ilimaani ratib ilimaani ratib mooy koo xam ne kilifa jullit ñi moo ne ko del jiite ca jàkka joojee mbaa ca barab boobee mbaa bokk jullit ñi ñoo maase ci dajaloo te ko ci seen kanam mu leen di jiite wala ka tabax jàkka ja moo ko fa teg ilimaan ratib moom bu jullee moom dong itam wecc na mbooloo kon nag soo julli woon yow rek gannaaw ba nga gis ilimaani ratib muy kenn képp ci jàkka ja mbaa ca barab bu muy julee nga ànd ak moom it te tey jàpp ne am nga ngëneel ndax menn moom dong sax bu julli woon foofee ñu ko jox digalul jullee fa di fa jiite menn moom dong dal nay am ngëneel nga xam ne du sañ a gisaat meneen mbooloo baamu ca bu ñu ko nee timis moom sañoo koo baamu mbir bëgg ngëneel jooy itam bu xasee watar doo ko saña baamooti ngir ngëneel moom nag mu fàtte ne julliwoon na timis daal di koy tàmbalee baamu wala mu fàtte ne julliwoon na gee ba def wetar ba tàmbali koo baamu nag ci mbooloo saa yu ko fàttalikoo te fekk am na ci rakk bu mat dañuy sopp mu tollanti ko muy ñaar mu def ko naafila dal di taayi sëlmal de bu ko teelee fàttaliku te amagul sax benn ràkk bu mat ko day dagg fa saasay saasa su fekkee ne nag ma nga doon baamu timis ci kaw fàtte ne julli woonu timis mu ànd ak ilimaan ba ilimaan sëlmal xëy na wax na asalaamaaleykum na ko ilimaan waxe wala waxu ko dagam daal baamu na timis ci kaw fàtte ne julli woon na ko bu yóbbul rek dañuy bëgg mu dolli ca benn ràkk muy ñeent ndax baamu ga dañ su ca dolli ràkk muy ñeent nag te fekk ba ñett ràkk ya matee ilimaan wax asalaamaaleykum moom itam waxoon na asalaamaaleykum kon dañ koy digal mu sujjóot bax de salaam waaye bu fekkee jottoon a wax asalaamaaleykum du aajoo muy sujjóot bax de salaam gannaaw bu dolli ràkk ci ñett ya muy ñeent in xaru ba leen jege na jéem wax it mooy su fekkee ne baamu na timis ànd ak ilimaan ba te mbooloo ma ba sëlmal ba mu yàgg mu door a fàttaliku ne ah moom kat timis ji aayoon nañ ko mu baamu ko waaye nag fàtte na ko ba baamu ko waaye xas ni yàgg moom dañ ko wax ne ko dolli ca benn ràkk muy ñeent da koy bàyyi noonu xam ne bi yoon moom raw na rek def na lañ ko aayoon ngir fàtte ba mu raw su fekkee da nga ne woon man day julli woon naa ba noppi waaye nag daay baamu ci mbooloo mii ndax ma am ngëneelul mbooloo ndax man rek àndoon ba nga àndi nag ca mbooloo ma baam bañ sëlmal nga fàttaliku ne ah man kat damaa defoon ne julli woon naa waaye kat sax julliwuma woon lii kat dug baamu maa ngi door a julli mbaa nga seetlu ne julli nga julli woon yow dong amoon na lu ko yàq ba nga waroon koo baamu ko itam julli yi nga julli ànd ak mbooloo mi doon baamu ndax bëgg nga neel dal nay doy sëkk du aajowoo ngay julliwaat baamu nga baamu te jàppoon ni ngëneel dong la mooy sopp ko sa farata gannaaw bi nga fàttalikoo ne yow kat yaa ko fàtte waaye julli woo woon mbaa yow kat julli woon nga waaye julli googee baaxutoon ki nga xamee ne moom julli woon na ba jox farataam day baamu rek ngir bëgg ngëneelul mbooloo lu yàgg-yàgg bu mu jiite ndax moo kuy naa fi la ñoo yemoo su jiitee nag ku ànd ak moom te yow julli goo woon benn yoon sa julli du baax ndax da ngaa mel ne kuy jox farata fekk kuy naafila mu jiite la kay baamu ngir ngëneel moom nañu koy jiite te moom ci boppam bu mu jiite su jiite woon mbooloo nag ñaar mbaalu ko ëpp ko it ñaar ñooñee mbaa mbooloo mën nañ xam ne seen julli ga baaxut faaw dañuy baamu julliwaat bu leen neexee nag kenn jiitu ñi ci des ànd ak moom bu dee ñaar dong itam kenn ko mën naa jiite moroom ma boroom muxtasar moom dafa andi woon baatub afdaadan wane woon ne ñooñu nga xam ne sàggan nañu ba fekk ku julli woon ba àggal bëgg rek ngëneel mu jiite leen dañuy baamu julliwaat seen julli yu baax waa da caa tegoon ne dañuy kenn kennoo kenn ku ne julli sa julli bopp mel ni sa ñu koo def mbooloo fii mu ne la nag walaw fii jamaaxatin muy ñaar mbaaloop ñaar ba ñuy baamu mën nañoo ànd am ku jiite rek duñu sart ne faaw dañuy beruxante kenn ku ne baamu sa julli bopp mën nañoo ànd kay def mbooloo ilimaan ne raatib mooy ki ñu waxoon ne kilifa jullit ñi moo ne ko doon jiite ci jàkka jambaa ca barab boobee wala jullit ñoo ko dajaloo wala ka tabax jàkka ja mbaa ka moom béréb ba moo ko fa samp muy jiite kenn kooku la ne wecc na mbooloo bu dee ci ngëneel bu jullee moom dong am na ngëneel la te it ku ànd ak moom dineenti ñaar képp itam du tee am nga ngëneel ndax ki nga àndul muy imaan ratib daa wecc mbooloo tey li ñu wax naa bu ko see jullee ci foofee muy jiite ba àggal daañu sib meneen mbooloo dikk bëgg faa defaat mbooloo ba tey menn moom dong it noonu la mel su julli woon ca barab boobee kenn ku woon ànd ak moom bu jullee ba àggal day mel ne mbooloo fa jullee ak moom ba noppi nga xam ne ñaar mbaa ñett buñ dikkatee bëgg a julli dañuy génn ci bitti def mbooloo waaye duñ mën a jullee ci biir jàkka ja def mbooloo mbaa boog def nañ lu ñu sib ba tey boole timis ak gee maanaam julli timis dal cee teg gee fa saasa bu dee guddi goo xam ne asamaan day taw mbaa ni mu mel ko masaa mel day taw ak jàppandal la waaye mbooloo lañ koy may bu ñu may kenn rek ci jàkk ja mu def ko loolu nag ilimaan niraati moom la mu doon doon kenn dafa wecc mbooloo moo tax moom rek bu nekkoon ci jàkk ja it mën a boole timis ak gee hadis ba dane woon bu ñu liqaamalee ilimaan ja ilimaan kenn sañu faa julli genn julli gu may julli farata googee ñu koy liqaamal mu ne la nag kon araam na ñuy liqaamal ilimaani ratib nga di fa sos geneen julli moo xam googi ngay bëgg a sos day farata mbaa day naafila moo xam yow rek moo xam ne nga bëgg ànd kenn mbaa ñenn moom daal dagam xas nañ tàmbali li xamal ilimaan ji rek moom kenn sañu faa tàmbali geneen julli ndax day mel ni kon kuy jam ak a diingat ilimaan joojee diggante fi mu tollu su mata xam la te jàpp ko ndax li wax léegi mooy addis ba nee na ilimaani ratib ja moo xam ci jàkk la wala ca ëtt jàkk ja wala sax ci béréb boo xam du jàkk buñ ko dee liqaamal farata ja kenn du sañ a tàmbali geneen julli gu bokkut ak googee ñu koy liqaamal muy wax nag bu fekkee ne dangaa nekkoon di julli ba nekk ci julli ga nag ñu tàmbalee liqaamal ilimaan nooy def julli googee nga tàmbali woon loolu ñu bare bari lay dal bu njëkk wax nag bu la wóoree ne boo dee jéem a àggale julli googee ràkk ba ilimaan di njëkk julli moom faaw mu raw la su la wóoree ne boo dee jéem a àggale julli ga moo xam farata la moo xam naafila la moo xam day jéemi farata ja ñu liqaamal ilimaan moo xam jeneen la moo xam am nga ca ràkk moo xam amoo ca ràkk ndega moom daal wóor na la ne boo ko dee jéem a àggale ràkk ba ilimaan di njëkk julli dana la raw mbaa bu la wóoratit jort nga ko mbaa nga koy sikki sàkka yooyu yëpp da ngay dagg julli ko gi nga tàmbali woon dagg nag mën naa doon nga wax asalaamaaleykum mën naa doon def lu dàqoonteeg julli ni ki wax te tey ko mbaa nga jékki-jékki wàcc sa yéene loolu mooy tàmbali woon nga julli ñu ngi li xaamal ilimaan te ragal nga ne boo dee jéem a àggale julli nga nekkoon rakkaam bu njëkk moom dana la raw kon faaw dangay dagg rek moom dagg ci lu war dal di ànd ak ilimaan ba ci julli googee ñu koy liqaamal su la wóoree nag ne mën nga àggale julli ga te rakk ba ilimaan di njëkk julli sax du la raw kon dañuy teqale julli ga nga nekkoon doon naa fi la ak mu doon farata bu dee farata itam ñu teqale ndax farata ji nga nekkoon ak jëñ liqaamal ilimaan jenn jaa wala bokkuñu su fekkee ne moom ci naafila nga nekkoon faaw da nga koy àggale ndax ndegam wóor na ne mën nga koo àggale rakk ba ilimaan di njëkk di bu raw kon bu dee naafila moom faaw nga àggale ko bu dee farata joo xam ne itam bokkutut dañ koy liqaamal moom it da nga koy àggale nekk nga nekkoon ci jàkk ji di julli tisbaar ndax da ngaa wéex a julli far takkusaan jot ilimaan ñëw ñu koy liqaamal kon xam nga farata ji nga xam ne moom ngay julli bokkut ak dañuy liqaamal ilimaan tey wax xam nga ne mën nga koo àggale te rakkaam bu njëkk sax du la raw kon day war nga àggale sa tisbaar joojee door a ànd ak moom nag ca takkusaan ja nga xam ne foofu moom jullit nga tàmbali woon nga am ceeb rakk ak nga ñàkk ca amub rakk ñoo ci yenoo faaw da nga koy àggale mu des nag bu fekkee ne farata nga nekkoon di ko julli xam nga ne it mën nga koo àggale te rakk bu ci ko ilimaan du la raw waaye nag farata bi nga nekkoon di ko julli kat moog dee ñu koy di xaamal jenn jee mel ne nga ñëw ci jàkka ji di julli ci takkusaan ba tàmbalee julli ndax dangaa defe woon ne jàkka julli na noppi far li man ñëw ñu koy liqaamal takkusaan kooku nag moom lay wax nii boo nekkoon ca jàkka ja di julli julli farata laata ngay noppi julli ga far ñu liqaamal ilimaan te nag jënd julli nga xamoon nga doon julli moo gee ñu liqaamal ilimaan genn gee mel ni yaa ngi ci jàkka ji di julli tisbaar jàppoon ne ilimaan daa julli ba noppi far ñu taal liqaam di ko taxawalal tisbaar nga xam ne kon ci tisbaar nga nekkoon ilimaan tam tisbaar lañ koy liqaamal mu nekkoon su fekkee ne tisbaar ja waroon julli sa bopp amoon nga ca ab rakka da ngay gaaw tegaat ca beneen muy ñaar nga def ko naafila daal koy dagg dem ànd ca jullit iliman ja waaye nag bu fekkoon ne suba la mbaa timis moom boo ci amee ab raqa itam du tax nga teg ca beneen ndax bu doon subaa loolu day andi naafila ci waxtu woo xam ne ay woon nañ ca naafila loolu tamit si noonu boo nekkee jàkka ji di julli suba defe ne ilimaan julli na ñu koy liqaamal fekk nga nekkoon ci suba da ngay dagg rek ndax soo ne am naa ci benn rakka daa ci yokk beneen muy ñaar kon na nga koo defuk naafila mel ne kon lañ aaye woon ci naafila gannaaw fajar fenk lu ngay ñaar rakkay fajar yow def nga ko bu doon timis itam gannaaw takkusaan dañoo siboon naafila kon boo doon julli jàkk ji timis ba am benn rakka far ilimaan ñëw ñu koy liqamal di la wax ne la tegaat ci benn rakka muy ñaar nga def ko naafila ndax kon da nga naafila ci gannaaw takkusaan waxtuñ aaye woon naafila moo tax foofu moom doonte am nga benn rakka itam da ngay dagg rek nga bañ a fàttali itam ndegam julli gi li xaamal ilimaan ak gam fekkoon nga di ko julli ñooye moo dong di jenn farata ja kon ndegam amoo itam lu mat benn rakka da ngay dagg rek daal di ànd ca julli mbooloo ma loo wax ne mën na ma am ñaar kon naa gaaw def ñaar mu ne nag bi ilimaan ñëwee ñu koy liqaamal fekk nga nekkoon ci jullik farata ñu wax ne ndegam gi nga nekkoon ak gee ñu koy liqaamal genn gee boo xasee julli benn rakka ci li nga nekkoon teg ci benn muy ñaar ndegam du timis mbaa suba mu ne nag bu fekkoon ne day timis te dem nga ba julli la ëpp ci rakka muy ñaar mbaa muy geneen ba julli ñeenti rakka yi dem nga ba julli ñett ya kon kat ba ëpp lañuy jox àtte ba mooy bu dee timis ndegam julli woon nga ñaar mooy ràkkab ñaareel ba rek fas na dolli ca benn rek muy ñett su boobaa nag nga daal di gaaw rek génn ndax timis moom mënee su koo baamu bu doon geneen nag fekk nga julli ci ñetti ràkka ñu door li xaamal ilimaan te genn gi genn gee rek maanaam mel ni takkusaan ni ñëwee di julli ci jàkka yi ba am ñetti ràkka fara ñu li xaamal ilimaan sori nga ci takkusaan ji ndax ndegam am nga ñetti ràkka sori nga ci da ngay daal di gaaw rek yokk ci benn muy ñeent nga sëmal nag daal di ànd ak ilimaan ji baamu takkusaan joojee bu doon timis nag moom boo ci amee ñaar ñu ngi xaamal ilimaan itam da ngay gaaw rek àggale ko muy ñett nga gaaw génn jóg foofu rek waaye timis moom doo ko sañ a baamu ni nga ko waxe woon léegi mais nag boo toogee jàkka ji ilimaan ñëw ñu koy li xaamal julli koo xam ne yow julloon nga ko ba àggal te it amoon nga ci ngëneel waaye ci mbooloo nga ko jullee woon mu ne kon doo sañ a ànd ci julli ilimaan nga ndax yow fekk na nga julli ko ba am ci ngëneel doo sañ a tàmbali geneen julli ba tey doo mën a toog rek itam noona mel ni kon ak jiitee moo la neexut kon faaw dangaa war a daal di génn sa saasay saas su fekkoon ne nag yaa ngi ci jàkka ji ñu ngi xaamal ilimaan julli farata goo xam ne yow julli woon nga ko waaye nag amutoon nga leen ni ki yow rek yaa ko julli woon mbaa sax fargoo woon julli kon faw nga ànd ca julli googee boo fee dem rek wàcc ko fa day mel ne kon da ngay dem ilimaan ji ne bëtul ilimaan maa ngi dem bëri julli wala maa ngi dem ci jeneen jàkka kon jàppal ne foo nekk ci jàkka ji dañu li xaamal ilimaan ak julli te fekk ne julli googee julli googu woon mbaa julli woon nga ko waaye bu mën a baamale te amoo ci woon ngëneel faaw rek nga war a ànd ci julli ga doo sañ dem bàyyi ko fa waxal laa musallin bu dee nag ci aji julli di xëy di si suñu jàkka ja atam maxa mu war koo mot li bu dee nag bu li xaamee ba tàmbalee julli julli farata waaye nekkoo ci biir jàkka ya nga dégg nag mu ngi xaamal ilimaan du tax nga sañ a dagg sa julli googee ne daay ànd ca mbooloo ma julli gi daa am orma joo xam ne boo ko see tàmbali doo ko sañ a dagg ci lu dul lu yàlla dagg ga loolu li ma tax xam la boo jàppantee ji doo gis koo ànd julli nga tàmbalee julli nag sa julli farata gi ba ci biir nga gis mbooloo mu julli koy da ngay jéem a gaaw rek julli julli ga ba mat nga dem ànd ak ñoom baamu boo ci am nga nekk sax baax na waaye doo sañu wax ni daal daa dagg saa julli gi daal di ànd ca mbooloo ma julli ga daa am orma te xas nga ko tàmbale soo dee jiite nga xam ne doo rek yaay julli nga yëg nañ ne am na kuy ànd si julli yi fekk nga toll ci rukkoo doo sañ a yàggal rukkoo ba ndax bëgg koo kee di door a ñëw bokk ca booba rakka wàññiwaale ko li may nag nga xam ne moom mën naa am ak xàmmeem demewul noonu soo gaawee siggi ba fekkiwul rakk bi itam doo ko wàññiwaale yàq ak julliwum su fekkee itam rakk boobu moo mujj rakk julli gi nga xam ne su ko rawee rek raw na ko ba tey mën ngaa yàggal ngir loola kon mën ngaa takk ci gàttal ne bu dee rek yaaroon julli toll ci rukkoo am ku ñëw di ànd seen yow nag mën ngaa yàggal rukkoo ba ba mu bokk ca ba tey bu fekkoon ne rakk boobu yee moo mujj ca julli ga am ko aksi nag fekk nga toll ci rukkoo mën ngaa yéexal rukkoo ba ba mu ànd ca ndax mu am jullit mbooloo ndax boobu rakk moo mujj julli ga ba tey boo ragalee ni moom kat ak xaleen demewul noona soo yëgal rukkoo ba ba mu bokk ca dana ko ca boole ba ñëwaale boobu rakk te du bokk ci julli bi kon yàggalal rukkoo ba bu dul loolu ñu sib nga yàggal rukkoo ba